parce que tout simplement xoolal xam nañ y a des querelles internes am na lu ñu waxul seen biir parce que li doon logique politique mooy coalition mooy taxaw ñu réunir ba pare. ñu féliciter kenn ku nekk door koo def d'une manière individuelle parce que loolu tey par exemple bu fekkoon Bougane dafa njëkk génn def. coalition Barthélémy Dias génn ni am lu muy contesté du indi jiixi jaar. Hmm. loolu du logique politique du xam-xam politique. dama ne du coalition bu war a survivre bu fekkee nag am nañ xam-xam politique. Hmm. ñoom ñi ne anti système lañ yàlla dogal. yow kenn mënul taxaw ne Bougane Gueye Dany mës nga laal ci nguur gi yaa fi nekkoon lii yaa fi lubal lii waxal ko Anta Babacar waxal ko Pape Djibril Fall ñu nekk des hommes sains dans l' espace politique. pourquoi ñoom mënuñu woon dëgg a gëm seen bopp gi ñuy woote ànd seen coalition bopp dem lu ñu am jël. Hmm. comme ni Tahirou Sarr def. d' accord Tahirou Sarr aujourd'hui il est en train de bâtir son propre chemin. Hmm. parce que dafa gëm boppam. gëmul ni war na mënul langaamu si kenn ak nangam ak nangam man loolu laa bëgg nit gëm sa bopp mooy mënoo woote gëm sa bopp Dembo Ndiaye. nga boole ceeg benn discours ne diw mi du ma ànd ak moom parce que il a trahi toute une génération tout un tey nga ñëw wëlbatiku. d'accord ànd ak moom. d'accord loolu ñàkk gëm sa bopp la. d'accord Serigne Niang loolu lay ñàkk ñàkk gëm sa sa bopp la dinaa si ñëw dinaa si ñëw ngeer. ngeer waaw may ma mu laaj may ki mu laaj. ngeer si yow laaj journaliste bi may ki mu laaj analyse Pastefène si ngay def. <laughs> ngeer parce que boo nee xas ay nit wëlbati ko ànd ak ñoom gëmoo sa bopp. ngeer maa ngi ñëw nga sa maa ngi ñëw nga sa wàll mu ma ñëw nga nga jox sa wàll. boole ko jaajëfal internet yi nga xam te ñu ngi suivre nekk ci commentaire yi aussi Gibson merci beaucoup euh, Ngagne jaxate aussi ñu ngi lay jaajëfal Aminata Dem euh, ñu ngi lay jaajëfal Abdou Rahman aussi merci beaucoup euh, nii la continuer leen ci partager commenter yi joxe seen xalaat parce que aussi yéen itam ci plateau bi ngeen bokk alors Nguer dégg nga ni mu waxee man sama question dama la koy laajaat mu gën a précise mooy dañu jàppoone peut-être ak li ku jéggi di daje yépp sàmm sa kàddu moom mooy opposition nouvelle génération bi ma doon a faire face ak Pastef mais ñu gis après yi dañu dañ dañ dañu deltu ginnaaw bu baax a baax lan moo nga jàpp moo koy sànq dafa dafa da man musuma wax ne afam air politique buy jóg hmm. cest à di réalité yi moo ko wane mënu ko wan wax parce que aw ma tuuti ngeer parce que man aw ma xam-xam boobu hmm. moom ñoom comme xam nañ lu war a ñëw ñoom ay xutbu lañ ay xaw xawsu man nag du ma xutbu c'est-à-dire man li egg egsi rek ci laa man a tiire hmm. samay xalaat wax ko c'est-à-dire que air boobu élection yi da ko confirmer mais ngeer des fois analyse na dina la may nga wax loo xamante ne ñëwagul mu ñëw ah, loolu de ci analyse ko ci bàyyiwul de di nga wax dara xëy ñu ne la nii def ni ñuy def sonko xam nga vaar këram la hmm. mais kon neel ci voilà xam nga vaar këram la air boobu hmm. élection yi da ko confirmer c'est-à-dire que yi ñoo am beneen vision am beneen gis-gis bu bukk teg gis-gis ya nga naan gis ay jamono mooy li ma ko wax sànq rek gis-gisu programme di analyser nit ki li mu lay wax léegi nit ñi tollatuñ foofu nit ñi ñëw leen fen leen bañ tooy duñ ci xalaat duñ ci lijjante ne leen neex rek Cheikh Anta Diop am na mag mu baax mu ne ma mas na koo wax ne si ni ne ne sénégalais seen xel dafa ràgg jamono boobu yàgg na. ñu ne Cheikh Anta mu ne sénégalais seen xel dafa ràgg. xel mu ràgg mooy. xel moo xam ne xam nga li may wax nii ay mag dañ ko doon wax man lii li may répété waat nii di wax ni ñii duñ xalaat ak ñii ay mag dañ ko daan wax ay mag yoo xam ne samay maam maam lañ dajaloon. waxi démb la daal waxi démb la ay mag di ma ko nettali ma ciy jaaraat mooy Cheikh Anta Diop laa la wax Cheikh Anta jóob bi nga xam ne ñoom sax bokk nañ ci dañ ko daan def royukaay. Hmm. te daray moom duñ ñoom. da daan wax ne Sénégalais yi seen xel dafa ràgg ba boo leen wax boo leen fenul sax dañuy jàpp ne yaa ngi leen di nax. am mag mu baax meneen mu ñuy wax Mamadou Dia déedéet euh, Lamine Gueye. Lamine Gueye Lamine Gueye. premier président lu mu waxoon. waaw xaaral rek Lamine Gueye. Hmm. dafa am ku ko mas a wax alaaji Lamine yow yaay gagné ne da doon am ku ne ko yow yaay gagné ndax nit ñu baax ñëpp yow lañ àndal. Hmm. diw ca dëkk sàngam diw ca Tiwaawoon diw ca Njaasaan diw ca Touba ñëpp yow lañ àndal mu ne ko perte naa. Hmm. waa ji ne ko lu tax mu ne ko Sénégal bariwul ñu baax. ca jamonoy Lamine. Hmm. léegi ndegam jamonoy Lamine lañ ko waxoon waxuma la ak jamono bii. xam nga ne xam nga boobu réalité politique yi ak léegi. bokkul ngeen léegi réalité. Ah. c'est-à-dire da ngay xool jamonoy Lamine Lamine ne la réew mi bariwul ñu baax kon mënumaa gañe dem perte. Hmm. léegi moomu réew di dox ba heure bii nan la mën a baree ñu baax xam nga ne presque jamonoy dem nit ñi di gën a ñàkkamti population Sénégal dañoo yàkkamti am mag yu dul doyal. mag yu dul doyal xale yu yàkkamti nag ñooy yàq réew te loolu moo regroupé Pastef mag yu dul doyal mooy ñi daw di transimer fu tooy ñu dem fu wow ñu dem xale yu dul doyal mooy ñoo leen topp mooy xale yu yàkkamti mooy ñoo kut ko kut naa am xam nga ñoom ñoo naan <laughs> réew mi nañ jël suñu temps nañu xaar boo yi ku yaakaar ne am nañ temps amuñu temps bu njëkk da doon am ay 30 doo ko xalaat am xaal alal sama nijaay dem na ay 45 ans doo am man man ay 30 laa am di xalaat ay millions. sama papa ba muy ba mu toll ne man amul woon mënul woon li ma mën te da koo doon fay di yàkkamtiwul mais man yàkkamti bi ci man moo ne ci ñëpp. mais lan mooy problème mu sàmm sa kàddu ngeer. non problème sàmm sa kàddu la muy dem. sàmm sa dafa bokk si ñu war a dem. non parce que am na anciens yoo xam ne dañoo bokkoon ci am na individualité yoo xam ne mën nañ génn nag defaraat seen bopp xam nga Bougane yoon bii mu jël mais amul dara lu mu ci changé na continuer. mais seen moom moo gën a ñàkk nag ci ci ci. non gënu cee ñàkk. ngeer c'est-à-dire que ànd fa nga yaakaar. ngay àndee quand même. foofu la yaakaar mais ñu bëri ñu génn récemment raw ko ci wàllum politique. mais loolu ci dara ou 2018. ba léegi mu ngi ci làngum politique bi dara ku nekk ak ku nekk ak sa wërsëg ci politique. mais est-ce mooy juum ci ay choix. non du juumul ci choix parce que choix boobu rek la mën a def. parce que loolu moo. daan nga jël sa temps nga jàngatal ma loolu ngir yàlla ñu waxtaan si en profondeur. bul affronté bul mbir jël mbir mi ci buggaan. non danañ la nga analyser. non nga analyser parce que noonu non non ngeer. li ma la ci wax bu la doyul dara dootul la doy. c'est-à-dire que. Hmm. xoolal moom foofu la yaakaar parce que mënul analyser. foofu la yaakaar coalition. Hmm. foofu la yaakaar ne bu fa demee am dara. yaakaaram foofu la ko teg. léegi nag dem na amul moom mooy tirer après conséquences yi ak parteem c'est-à-dire ñëpp gis nañ ne dem na amul. Hmm. te Bougane moom doo ko participer ci élection. am déet. Mhm. am na lu mu ci mu ci jàngate moom après moom mooy tirer les les conséquences mais man li ma la wax ci nouvelle ère buy dem. dama ne la parti politique yu mag yi fi newoon. ère jeexal nañ ma degal la ci ne la. non dana laaj ndax dama la degal la ci passif benn adversaire la am muy crise économique c'est-à-dire que ñii jàkkaarloog ñoom mënuñu ñu ko dara xanaa wax ji tënku na. Hmm. mais comme moom génnoonu parti bi la. moom li parti bi bëgg li maanaam li neex parti bi rek la li bëgg di wax. maanaam est-ce que ay analyse moom moom déedéet hmm. moom boo ko waxee day miim ne farut ak parti te géwélu parti bi la ci parti bi la far mais dafa nangu ta assumer mais ci biir waxam dañuy xam ne ci parti bi la far man damaa bëgg góor ngay fëgg sa dënn di assumer boo contrer nga ne damaa contre boo faree nga ne damaa far kii lay déglu nag day xam ne kii di analyser ku far la Abdou mii di analyser ko contre la mu xool li dal xelam mu def ko mais pas nga làqatoo ne un chroniqueur làqatu naa non parti bi ni fekk yow dangaa far dama bëgg mbir mi ñu koy teg mu leer nit ki xoolal dara fi moom dara warul tax ngay ngay ngay say propos. Hmm. ngay jéem koy varier assumer say responsabilité man damaa faral parti bi parti bi laa àndal ñoom laa doon campagnal ñoom laa gëm falaa ne ñu lay xoolee bëtu partisan moom bët boobu ma koy xoolee dama bëgg mu confirmer ko dëggal ko. waaye élection yi li la ci waay mën a wax mooy ère bii di dem moom beneen ère ay ñëw day am ci làmb day am ci fubal day am ci fépp foo gis dem ère boo xam ne buy jeex ku ca ànd da ngay jeexaale. eeru hmm. parti yi day jeex. kon mën nañu jàpp ne ñoom Bougane nañ parce que ñoom ànd nañoo ñoom ci élection yu mujj ay ñoom Pape Djibril Fall ak sa xarit Anta Babacar Ngom. non ñoom mën mën nañ continuer seen chemin. ah mais kon kon kay bul jël. xam nga ndax mën na ñoom continuer seen chemin parce que dañoo demoon coalition. dañuy des ak coalition boobu. coalition bi dafa mel ni bokk gis-gis Serigne Niane na mënatul exister. waaw léegi moo tax ma ne la léegi nañ leen toog di leen déglu ku ci nekk yaa ngi sa parti politique Anta mu ngi ak ARC Pape Djibril mu ngi ak léegi serviteur Bougane mu ngi ak ta sàmm kii a xool lan nga manqué nga defar lan nga ñàkk nga defar ko même ñoom bu ñu defar waatoon laax ba taxaw ak Pastef nii muy déroulé Pastef moo ëpp chance. te parti yi fi jaar xam nga ban chance la am. mooy am na ñoo xam ne dem nañ ba ne ñoom maanaam dem nañ ba def ko ab sëriñ Ousmane Sonko leer na tase naag fii nit yi restaurant bi mu ne ma bu ma dee na Ousmane Sonko jullee. mais est-ce que du wax waxin la rek. waxin waxin. mais su ko neexee. waaw am na si droit doom bàyyi ma ñëw. <laughs> xam man damay analyser mu may dagg. allez-y sens bi ñu am. bokk na ci ay nit yoo xam ne dañ naan la ñoom Ousmane lu mu def bëgg nañ. yooyu parti benn parti amu ko fii c'est-à-dire nit ki mun la kii li mu def bëgg na kooku nag écarté naa ko ci wàllu politique dama koo dugal ci euh, ci ci ci ci cadre ñi may wax les moutons de la république nit ki boo xalaatee noonu rek génne naa la ci affaire lu may laajte xalaat léegi dootuma la laaj xalaat dama lay ma ne lay jàpp ne yow xar nga parce que munoo taxaw ne nit ki lu mu def baax na lu mu bëgg a def baax na lu mu defagul baax na loolu xar nga yow yow mala nga nit du fonctionner noonu te ñoom am nañ loolu am nañ mbooloo bari moo xam ne nee nañ lu mu def baax na. lu mu waxagul baax na su waxee dëgg baax na bu waxul dëgg baax na lu mu wax sax même bu dul dëgg dëgg la sens boobu parti amu ko léegi nag loolu lan moo ko mën a dindi ci nit ki. mais mais est-ce que. est-ce la pose. Mm-hmm. question lu mën a dindi ci nit ki li koy dindi dina dindi diggante baay ak doom kilifteef bu fa am dina diggan dindi diggante yaay ak doom kilifteef bu fa am xam nga mooy lan ñàkk ñàkk. Mm. gis nga ñàkk gu tar. accéléré wu amul saafara amul jàngoro dina dem ba nit ki bët bi mu la doon xoole day deñ d'accord parce bu boobaa moom wuti lu mu dundee da koy gënal mu lay topp ay dee bu ma dee nga jullee maag bu ma liyee yëpp da ngaa ñàkk a gudd mais boo ñàkkee gisoo ko hmm. la fajal sa ñàkk gi. Hmm. nga bëgg a xëy mënoo ko am affaire yi tar tar tar tar tar boobaa adversaire boobu laa la wax fii mu terminé waat ko mooy adversaire passif. d' accord mais Nguer est ce que loolu buñ buñ buñ bu ñu introsé histoire du ñu jàpp ne sens la pour Sénégal parce que réew yu développé boo xoolee Inde ak Mahatma Gandhi nga xool Chine ak Mao Zedong dañ ko gëmoon benn gëm-gëm boo xamante ne tey mën nañ jàpp ne comme dayo usman Sonko la ñu amoon mu profité ci loolu woo xale yi ci mbay ñu wuyu ko woo xale yi ci liggéey ñu wuyu ko est que loolu du sens pour Sénégal aussi buñ ko jàppee noonu. non xam nga kenn pour mën a développé suñu réew kenn wuyuwul Ousmane Sonko ci mbay. non ma ne est-ce que bu ko defee noonu. Ah, exploité ko côté boobu du doon sens pour Sénégal ne woote nag kenn wuyu ko ci mbay. ah daan na fi def ay vacances agricoles patriotiques tool yi àllarba sëñ bi loolu lañ ci yoon lu ci yoon Ousmane Sonko toolam boobu dafa mën a dundal benn kër ab toolu boppam la kay toolu parti bi la kum neex nga xëy fa toolu àllar àllarbay toolu àllarbay sëriñ si lañ transformé def ko àllarbay Sonko mais loolu bul ne woon nit ñi ci mbay Sénégal tey ba ba mbay mi ñor dinañ ko fi waxaat fii ba mbay mi ñor ba récolté ko ba indi ko. non ma ne bu doxalee noonu. du doon sànq Sénégal ngi doon produire ñaata ñaata ñaata ñaata tonne de gerte un million six cent daaw ren neuf cent mille sax dañ koy calculer xam nga mu ngi naan ma bu ba jaañ def na ci mbay mi ba mbay mi ñor di nga am gàcce de ba gerte gi ñor di nga am gàcce gerte gi néew a tax état bi mu ne du nangu ñu jaayi ko bitim réew parce que dafa néew léegi nag loolu loo koy tuddee yow comme yéen yéen daal géwélu parti bi ngeen fas yéene wu leen a wax dëgg yéen askan bi daal yéen fi mu ne nii yéen dañ leen di jox sax ngeen continuer di di wax lu dul dëgg ba kañ. d' accord alors. Euh, ndax xoolal atta xaaral xaaral xaaral xaaral. Hmm. bourse étudiant yi da ngeen avance woon de avance bourse depuis année co sans collé ba tey bourse dañ koy fay normal mais avance bourse non Sénégalais du jërul wax bisa ngi ñëw nii ñu koy xool. dinañ màttaat seen baaraam wi cax. loolu nga yéene wala. non loolu am loola war loola day am. ci ban base nga basé pour wax xam nga lu tax budget boo ko programmé dangay ñëw nga def sa programme budgétaire nga ne. Hmm. lii fii la jëm. lii secteur bi lii boo ko boolee def ko yóbbu assemblée daan ne lii nag ci réew mi laay wute lii mooy recettes yi ngeen di wax ci impôts yi dinaa ñëw sax ci yi lii ci impôts yi lay jóge lii ci nangam lay jóge lii ci nangam boo paree nga ne bu ma ko léegi toll na ci lii toll na ci six cent milliards mais 1000 milliards yi ci des damay dem wuti ko. maanaam damay dem lebi ko. Hmm. léegi nag loolu chaque chaque 3 mois wala 4 mois am na loo li nga lebi day am lu ñu la ci jox. léegi ñun li war a compléter suñu budget bi pour mu dem ba janvier efféminé na du ko joxe tant que juin juin jotul léegi day tëb tëb na lan décembre janvier février mars avril mai juin 7 mois léegi loolu foo koy jëlee ji te yow ci diggante bi. yow lebi nga fi eurobond lebi waat nga fi kon demaat nga fi ba soxlalee alal jooju foo ko dugal te ñoom li ñuy leb yépp maanaam feeñul ci ñun pétrole bi ñu ngi koy exploité feeñul ci réew mi léegi réew mi ñun kañ la ñuy suqaliku kon il faut nag xam kañ lañ commencé produire pétrole mais est-ce que am na dara lu mu feeñ ci ñun nañ waxante dëgg rek du ci courant bi du ci ndox mi du ci dara mais mais mais question boobu est-ce du ñu bàyyi ba décembre bu ñu installé assemblée nationale. boo voté budget bi ñu soog a mën a. ñu doog a posé waat xam naa man ñii mën naa man naa leen ko muñal. dara du xew. d'accord xoolal waale du way coon du nga hmm. am solo la ngeen xaaral xaaral réew mi lépp am solo. réew mi amul dara. loo boo basé wu si sa musal nga bañ dem di lebi wala. di dugg ci yenn financement yi par force da ngay lebi. états ngi kenn foyewul fiscal te dañuy lebi. non maanaam yenn lebi laa lay wax quoi ñëppay lebi ñëppay leb jeex na kon kon impôt kese taxul da doo lay bay mais ñu rationaliser ko quoi. wala gisoo noo koy rationaliser. maanaam tey boo boo basé si sa impôt ba mu am doole am na si yenn bor yoo xamante ne doo ko dugg. comme eurobond bi ngay lim xam nga xam nga kii comme moom amul entreprise. Hmm. xamul nu entreprise di doxee. moom benn sàmba booy la rek bu parti bi. ah mu seen géwél xaaral ma ñëw rek. da ngay ñëw ci réew. par exemple entreprise bi day ñëw ci réew. ne la man damay samp mën naa laa jëlal mille personnes. yuy xëy fii ma leen di fay salaire. Hmm. mais da may wàññil impôt bi. bu fekkee nag impôt bi nga accéléré man ma jël cinq 500 personnes mais Mohamed mu jëlal la 1000 personne moo gën xam nga lu tax. lu tax 1000 personnes yooyu ñëppay lay fay impôt yow seen salaire da nga ciy am impôt. impôt boobu nga cay am ak booleeg bi mu lay fay moom mooy ëpp cent personnes yi mu jël d' accord nga ak man affaire bi technique la bopp mais soo ñëwee fekk ku mel ne TFM amee 400 et quelques employés xaw ma 500. cinq cent yépp lay fay impôt léegi nga dóor ko benn euh, impôt mu ne la bañu ma ko fay mais bàyyil ma koy fay ndànk-ndànk nga ne ko mukk tëj ay kontam mu woo personnel bi ne leen ñii dama koy wàññi ñu dem nañ fi mu leen wàññee moom foofu la sa seen seen seen impôt yam ñoom dootuñu la fay nga ñëw fu mel ne EPAS am na ñu naan mille cinq cent personnes lañ wàññi waaye ëpp na ko parce que wàññi nañ deux mille personnes man am naa benn xarit boo xam ne rek ay dara fii la dëkk secteur BTP la nekk 200 personnes la wàññi moom benn nit la ak ñi ngay génne port ñi ngay génne yeneen secteurs yi ñooñu ñëpp dañ dañ la war da nga waroon am ci ñoom impôt. Hmm. moo tax FMI bi mu ñëwaatee dane impôt sur salaire Sénégal perte na ci presque 10 milliards yu teg ci 21 22 milliards yi mu doon gagné. jël ko secteur par secteur secteur bu ne mën la lii la ci Sénégal perte secteur bu ne te loolu nag dafa leer mooy ñii ñu dàq nii ñoonu daan fayee ko salaire di ko def seen poste di dem ci boutique bi di jënd yooyu yëpp perte nga ko léegi la yoon bii Pastef jël dañ koy wàcc rek ñu doxal mais gis bu ñu ko wàccul moom mooy nekk seen pire ennemi mooy xiif borom kër àttanu ko borom réew àttanu ko borom dëkk àttanul xiif. d'accord d'accord alors léegi nag ñii moom sa waay hmm. seen ceeba tooy rek ñu nekk fii di fontoo nit ñi di leen yàpp. parce que ku nekk am na lu ñu lay wéef par jour bu ñu fontoo.